kàddu yi day mel ne day ñaari kàddu tey genn kàddu loolu Cheikh Abdoul Ahad jàngale woon na ko ci jëmm nee na woon ci xereñu yàlla bokk na ci ni ma ko xamee mooy man ak sëriñ saaliwu ak sëriñ bu dañuy génn jëmm tam daf ñu yett loolu xereñu suñ borom la waaye kàddu gi it day genn kàddu tey nuru ñaar gi ci jëkk mooy cantu mag ñi nga xam ne ñoom laa njëkk a tudd te jële ko ci sëriñ Amsatu ak kuréelu xasida yi ñu àndal ak fuñ mën a bàyyi ko te ñëw fii dama ciy wax bala may jottali kàddu cant bi ne ñi ñi nga xam ne sëriñ am satoo tax ñu teew daaru salaam li des seenu dund mënuñu koo fay ndax barab bi ñu toog bi muy jege man ñëw naa ci sëriñ Cheikh Abdou bëggoon ñu defe ko ci mbaar mi mu ne ma daa mel ne sëriñ seex ñëw na fi ak sëñ Mamoun dañoo tànn barab bi ngir mu gën a yaatu waaye ndekete barab bi moo tànn boppam ndax fii guy gi tëdd mag ñi meen dëkk bi xam nañ ne soriwut ak fi guy gi nekkoon mën naa am guy gi newoon fii moo jur gii te ñépp xam nañu ci guy gii la sëñ tubaab toog ba gis leeru Touba jóge fi dem Touba guy gi newoon fii fii tollu ak leedu ni rokob satarne moo doon néeg soxna Aminta Lo la ko féete penku nekkoon néeg soxna Awa Bousso barab bii ñu duggoon di néeg Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne bi sëriñ bi sanc ko muy bi mu njëkk a moomal boppam ci àdduna tudde ko Daaru Salaam daaru salaam it ñépp xam nañ ne kërug jàmm la sëriñ bi it ñaan fi ñaan goo xam ne bind ko ci as kayit da koo bind ci aw këyit mu leer nañ li ñu sëriñ bi defal rek laa bëgg a wax ñi nga xam ne teew nañ ci guddi tey te yàlla ak farloog sëriñ Amsatu yóbbu leen fa barab yim leen di yóbbu la ngeen fay jële ci njariñ su doon luñ leen mën a wan li des seenug jaamu yàlla dañ naan na ko yàlla fayee sa ñam sëriñ Touba barab bii la njëkk a sanc talaata la ko sañc fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1884 fii la sëñ Modou Moustapha gane ak jamono fii la seex Mouhamadul Fadal gane ak jamono fii ci armée lii la Cheikh Ibrahima Fall amee ngërëmul yàlla jàkka ji ñuy tabax te àggagut sama maam di maamam moom nii di Modou Matar Mbay moom la ko sëñ Touba rëdduloo jiite fi tisbaar nodduloo ko timis jot sëñ Touba noddal boppam jiitaloo Modou Matar Mbay gee jot Modou Matar noddu sëñ Touba jiite fajar jot sëñ Tuubaa noddal boppam jiiduloo Matar May na ko Moodu Matar seen jàkkaango seen jumaango Moodu Matar Mbay di fi yëkkati baatub laa ilaha illallah bu waxtu wi jotee moom lay wootee moo tax sëñ Musaa Ka daan wax naan bun masaa di noddu gaay ya daal di sikkar ba sii di ant génn ñu door a kàbbar kon sëñ Tuubaa jàkka ji la njëkk rëdd ci jum moomal boppam néeg bii la njëkk am ci suuf su moomal boppam fii ñi ko toppoon ki njëkk am ngërëmul yàlla fii la ko amee muy maam Cheikh Ibrahima fii it la njëkk a seexale doomu adama daaru salaam daara ji fi nekkoon ak daara ji nekkoon tuubaa bi sëñ Touba see Touba yaari daara yi ji juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñoo fi nekkoon feeñ wax nañ ne ñetti téeméeri nit ak fukk nekk nañ fa sëñ Touba ne maam Cheikh Anta daaray daaru ja ak sa jëmmi bopp rafaatale naa la ko ak dëkk ba ci fukki atam ak juróom-ñeent bi mu fekkee sëriñ Touba ci géej gi ci atum 1901 ànd ak ku ñuy wax Ahmadou Ndiaye Diop muy maami ñenn ci barab bi Serigne Touba daf ne maam Cheikh yow de li la fi tax ñëw laa lay laaj li la fi tax a ñëw. da ko ne dama laa jël si dama laa jël si mu ne ko seex loo jublu ci jël si gi mu ne ko boo fi teggee dem te del si waatoo réew ma nga bàyyi ko ñépp ay dem sawara mu ne ko seex lu leen di yóbbu sawara mu ne ko dañ lay weddi te ku la weddi dem sawara mu ne ko seex sama borom dogal na sama delluwaat daaru salaam ijhal rujuhi ila xawmi saadatana wal yow ma jamhil xalqi niirana su may delluwaat daaru salaam ñamay fekk daaru salaam na yàlla dox seen diggante ak sawara ijal rujuuhi sama dellu gii ilaa xaw mi jëm ci sama nit ña sahaadata naa nekk seenu texe bis ba ñépp yi daje na nga leen ca fegal sawara lahu taala rujuuhi min idaaya ila daari salaami lati tubna bi tajdiidi danaa jóge ci noon yi delluwaat yaa salaat sama kër dañuy wax daaru salaam su boobaa ical salaamatan te duumu yaa salaam liye walil iyaali fi daaru salaam nanga ma defal jàmm ju sax dàkk ci man ak sama njaboot da nekk daaru salaam waaye nag seex des na bagaas yii lépp ay tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam la lu ci bari ndox mi lekk na ko lenn li gas naa ko su ndox amatuma fu ma ko def juróom-ñaari at seex maa ngi taalif li may taalif gisuma kenn ku ma ko mën a jàppale te kenn nattabliwul na sëñ Touba alxuraan ak hadis ak i bagaasam sobe daawu ko laal moo tax gaal goo gis dem ci gi rek genn njàpp la sëñ Touba ko daan xobal boppam di ko jàng-jàngee seex rawale ko rawale ko yóbbaale ko maam Seex Anta jël gaal yooyu mu fees dell ki xasida mu ne ginnaaw ndox mee ko lekkoon su ma ci noppee ndox dutu ko lekk dafa jaari Tunisie Tunisie la jaari ba mu demee móol ko moo njëkk a móol xasida yi sëñ Tubaa yi andaale ko Daaru Salaam denc ko ba sëñ Tubaa ñibbi si 1903 mu génn gaal ya wan ko na ko xasida ya nga waxoon ne ndox da koo lekk xoolal yi ba xam sëñ Tubaa xool ko na ko seex foo ko jaarale mu ne ko dama ko demoon ak moom Tunisie am na ay weñ yuñ ko dugal suñ ci noppee ndox duutu ko far mu ne ko seex ni nga ma bette ci tagg yonent bi yàlla na ko yàlla bette bu ëllëgee kon ka moo loon xasida ya moo taxoon sëtën bii ñëw na tey ji dama bëgg ñu jàngal ko xasida kon guddi gi kut ci guddi yi neen bis bii mu fi fanaan si sëriñ Seex Abdu muy dend ak moom du asaar bis bii la fi Cheikh Abdoul Khadir daan fanaan si ndax suba lañuy tàmbali njàngum kaamil mi dañ daan def buñ nee suba la Cheikh Abdoul Khadir fanaan si bañ ne suba la màggal sëñ Abdou Lahad ñëw sëñ Abdoul Khadir dem ñibbi kon buñ nee suba la màgg tàmbali njàngum kaamil mi sëriñ bi fanaan si fee jàngi xasida day mel ne Cheikh Abdoul Khadir del si waat na waaye sëñ Touba ñëwaat na kon képp koo xam ne ñëw nga fi sëriñ bi defal na la loo mënta faj ndax fepp suuf woo fi toog rek sëñ tubaa toog na fa wala ku sëñ tubaa gërëm toog na fa ndax yoonu murid yépp daje nañ fii te lii ngeen di waajal moom la sëñ tubaa njëkk am ci mbégte ginnaaw juróom-ñetti at kero ba sëñ Mbàkke moor Anta Sali wala ba kero ba soxna jaara demee demee àjjana ca poroxaan mu ànd ak baayam ñëw pataar jóge fa ñëw Mbàkke Kajoor ba ni baayam génne àdduna Mbàkke Kajoor mu ñëw sanc Daaru Salaam génnaat Daaru Salaam sañc Touba ñu jëlee ko fi yóbbu ci géej gi ba 1902 sëñ Touba toogu fi benn bëccëg boo xam ne ak njabootam wër nañ ko ci jàmm lépp ci ay fitna la keroog ba muy wax ca Mbakke bari naan xusuur yi xalat wal ahlu an ni tafarraxat sama kër ya tas na sama njaboot tisaaroo nañ ngir lan liggéeyal Moustapha ak di ko tagg benn bëccëg rek ko ko benn bëccëg ko ko mooy keroog ba mu ñëwee cëpp Daaru Salaam. juróom ñetti wax ñetti waxtu ci guddi ñetti waxtu ci guddi la sëñ Touba jóge ñaxal caafura jaar kokki jaar kër Matar Binta ñëw ci déeg bu ñuy wax daaru xadim mu ne googu gu ñuy wax Njoogu Njaay dàqal saw fas tam gaaw nga dem na seex maa ngi ñëw daaru salaam laa jëm si gan du bette wax nañu bi muy agsi dañuy nodd fajar nodd gu jëkk ci lañ toll mu fekk kër gépp tëj xamut fu maam seexante ne mu ne seexante ci kaw Seex ñetti yoon mu dégg bunt yi tëll tëll mu ne ko sëñ Touba ñëw na de mi ci sa kaw nee na Seex Anta génn na xaw ma ku ko wax de may naa ko fukki naaru góor ak ñaar bi ñu daataaka defar kër yi la sëñ Touba ak Seex Gawar ga juróom-ñaar fukki fas ak ñeent la wàccaale Daaru Salaam muy gan ngan gu bett sëñ Touba sëñ Gaawaan waaye sëñ tu sëñ Gaawaan dafa yor alali sëñ Touba dara daaw ko bett mu daal di yónnee fii ci Njaaréem ak Mbàkke Bawal jënd ay piisi bassin ay piisi bassin la muure kër gi wodde ko néeg yi ay piis la wodde taax ma ba wàccoon biir ak biteeg mat la yebur ya sàkkoon